you لبيك asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Aynou Mady TV ñu ngi leen di nuyu fa leen mën nekk ci addina tey ñu ngi fii ci mbuur ci quartier Coose S tabaarakallahu ànd ak euh, sunu mbokk Serigne Saliou Ndiaye bu Serigne fallu Mbacké fa tabaarakallahu muy màggal bis bi nga xam ne da koy def at bu nekk di ci cant sëriñam bu tedd boobu di maam Fallou radiyallahu taala anhu waaye nag mu ànd kook njabootu Serigne tubaa yëpp fa tabaarakallahu danaka mbollem kuy tàggkatu sayyiduna Muhammad te yalla dogal nga aju ci keur mam hadim rasul tey yaangi fi ay setam ñi ngi fi serigne Saliou ñu nuyu la lacc la bes bu tedd bi tabarakallah bi ko dalé taxawal ak legi ci ñaata at la tollu ak lan moy sababu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 yàlla sàmm la yàlla dafa yokk sa xam-xam sa yéene ji ci kër Maam El Hadj Malick nga mottali ko ci nga ko bëggee alxuraan di ngay nekk di ci yëngu li nga ci bëgg di ci nekkal sa maam yàlla dafa la ci ndam euh, sant yàlla bu baax a baax ci biis bii euh, laaj bi nga ñu laaj sawar nañ ci tontu ci ndax lépp xam naa ko léegi ci biir bis bi ñu ngi ko tàmbali woon 1992 euh, li taxoon na it ñu ñu ñu sant mooy ci ay nelaw rek lañ génn sëriñ bi eh, mel ni weer nawet boo xamante ne toog ci weer ak nangam tawut eh, gàncax yi toll ci war a dee eh, ma tëdd ba guddi ma gént sëriñ bi mu toog ci benn fauteuil fi ma toog di waxtaan ak samay xarit mu woo ma ñëw. da ma xàmmee ma ne ko waa photo yi ma gis ak jëmm jëmm Sëriñ Fallu la mu ne waaw man la Fallu Buso xam nga lu wut fii ci àllu xombal bi ma ne ko déedéet Mbàkke mu ne xoola gerte du bi nii dee ma ne ko dégg naa heure bi nga fi nekk heure bu la ma sa neex da nga tawal mu taw mu ne ba léegi maa ko yor joxuma kenn waaye tey yow laa koy def dellu sa morom yee ba ba léegi nag ci nelaw la loolu toogal sa xarit yi soo su ma neexee mu taw suñ ko si gàkk waa ci ndox mi bi mu ñëw wax ko ñu ne mu dimbali nit ñi xamuloo añee ba wax taw mu mel ndox mi dafa commencé di wàcc bi may daw di geesu mu woo mu mun da ngay nelaw yaa ngi ci guddi gu xaaj bàyyil bu set nga wax ko ci mbooloo ma sa mborom ci ndox mi loolee ci ma bi ma nee xefeet yow ci laa xool deux heures du matin jot nelawaatuma li ci des ci guddi gi bi ma xëyee laa dem ci àll fekk sama waajur ne ci àll bi jaaxle ma ne leen seen jaaxle jaax ndax gis naa Sëñ Fallu di mu ne tey lay taw sama waajur jigéen sax femm na ma ma ne ko waaye bu taw tey dama xaaj ci yoon ndax ki ma ko wax ci nit kenn la te li mu wax dina am muy Sëñ Fallu keroog midi laa leen ko wax une heure la commencé taw keroog ba deux heures naa ngi trois heures ma toog nag amul lenn lu ma ko fayee maanaam lii nag jomb na ma kon naa wut bis boo xam ne dama sant Serigne loolu mooy tàmbali gi ma tàmbali ko 1992 def ko xombal ba ba 2006 ma soog a ñëw mbir tàmbali mbuur gi wéyal ko fi loolu mooy sababu bis bi. macha allah Serigne Saliou yàlla nga ko taxawal téeméeri at ak yu topp. Eh, tabaarakallaahu sëriñ sëriñ Fallou radiyallahu anhu eh, di koo xam ne daanaka soppee képp ku bëgg ku baax la soppee ñëpp la yàlla moo ko defal loolu tey yan jikko nga mën a taataan ci moom yoo xam ne ma gën na la marqué ci dundam moom sëriñ fàllu Mbacké. waaw jikko yi sëriñ Fallou li ma ci gën a kii mooy mooy xajoo ñëpp xajoo ñëpp sëriñ Fallou moom moom wax naa képp ku ma sañu sama kanam wax ma soxla boo boo boo ab julit li ma njëkk a ci yow moy li yàlla wax ci alcorane wala xadd karam na bani adama loolu la jàppe ci yow ba soxla soom wax lu ci man dina ko def bo ñëwé dib jullit ba jappal l'islam jën bok te mënu ñuko seddo ma jàppale loola ba la ngay wax ma faj ko bu dee ab taalib yi nga ma jàppale sama ñu ànd ak Sëriñ Tuubaa dimb bu dee mbàkk nga sant wala nga bokk ci mbokk gi ma jàppale deret yi nga xam ne moom la yàlla boole ba nit mos too ci kanam Sëriñ Fallu wax loo soxla soo xam ne lam ca mën def ko ci beneen bi ci bi ci bi ci toppit moo yërmande ñu ëmbal mi mbindeef yàlla yi mbindeef yi nga xam ne ñëpp la yërëmoon baagoon ci ci ci mala yi sax Sëñ Fallu leen yërëmoon. julli ci sangu sang yi sayyiduna Muhammad ibnu Abdallah jaajëfal sunu yaakaari teeg ëllëg maam Serigne Touba Khadimu Rasulullah ak ñëpp ñi liggéeyal diine te awee ko ci yonent Yàlla Muhammad sëñ Saliou Ndiaye jërëjëfati ndax sunu maam ji nga duppee guddi gu tedd gi képp kuy jullit bu baax rawati ngay nga dib taalibe loo gàtt gàtt nopp dégg nga sunu maam jooju ci liggéeyam bu rëy ci ànd bi mu àndoon ak xaatim rasul ak doyloo gam ko doyloo woon waaye li ci ëpp njariñ muy yar ci njabootam yar ci taalibeem te kuy taalibeem ku gëm yàlla akub yonentam doy loo saax du mu rasul sunu maam jooju boole na la ci ñaanam boole na ci liggéeyam xam naa sëriñ Saaliw mooy ñëw ci sunu maam ju tedd jooju ndax li ko yàlla defal ci mbuur te nu seede ko mooy ku bokk ci sëriñ Tuubaa wa ngay nit ku baax ci réew mi yàlla baaxe na ko mu gëstu ba xam la kon yéen ñii mu yabal jëwrin sëriñ Saliou njaay ak dëkk bi ay bokkam ak dëkkandoom ñu ngi ñaan bis boobu ngeen jëm yàlla na ci yàlla def lu kawe seen njort ci barke Seexul Xadiim waaye ci barke tam sunu maam jooju nga xam ne bisam la ni ngeen ñëwee ci jàmm bu ngeen dellu yàlla na ngeen am jàmm di nuyu bu baax sunu sang yii ci sunu kanam balay sa yéen a mën a sagal seeni taalibe ku ngeen àndal rek ab bisam dina wane ni seen maam ja ku mu àndaloon dala yéene ajjana ak àdduna bu jag ñu ñépp ñaan ñu ñaan ko te mooy est-ce que yàlla na yàlla fay sëñ Mouhamadul Basir maa ngi koy wax démb ni ko Saliou Ndiaye day bu yàlla defoon nit ñii fi ne ak ñi ñëw ñi ñëwul ñu wan la xol yin la ëmbal ngir njariñ li nga amal dëkk bii ku fi ñëw ti di sëtub sëriñ Touba wala muy sëtu jëmm ju tedd joob ji sunu maam nga tudde ko bis bi sëñ Saliou yaa baax ndax wama sayidna illa bi ma alim na ñun sa mag lanu jomb na noo waxati ci àddina li ci des lu nu gëmul kuy jullit ku di murit ku di nit ku baax ameel na la njukkal njaay jaata ndax tànqalu woo kenn jànga li nga war a jàng di doomu soxna xam nga li nga war a xam waaye jox nga ñëpp itte yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi tàmbalee ko Serigne Modou Mbacké ابن الشيخ مرتضى ابن الشيخ محمد Fadal ابن خادم رسول nga xamne bu toogee jotaay bi rek tooga na fi bi serigne bi waye ñu ànd ak rakam mu Cheikh abdullah Ahad mi nga xamne ku ne yag na ko xam ci bis bi moom Cheikh murtada waye bi mu ñëw mu ànd ak serigne Modou Mamoun mi nga xamne momit sunu serigne la sunu xarit la lool te mu yàgg lool dem bi ma koy woo mu nga daaru salaam waaye daa bàyyi téem yëpp te ñëw ci bis bi mu sëriñ asgade mu Cheikh Mamadou Mamoun turandoom maam Cheikh Anta moom it ñu ngi koy siyaara bu baax di siyaara si Ilimaan Mbàkke mii nga xam ne moom it dëkk bi ku ne xam na ko ci muy nitug alxuraan yor daari alxuraan di jàngale di sëtub soxna Faatija Mbàkke moom Cheikhul Xaddim nga xam ne moom la sëriñ bi njëkk a gis ci njaboot gi yàlla dogal na moom mii jàng na ci bis bi ñetti kaamil benn kaamil fii la koy tëjee ci jataay bi jàng na ñetti kaamil jàng na ko ci liin ci jàng ci alxuraan wax dëgg yàlla yu bari mënuñu koo lim waaye moom lañ ko lay taa bis bi ku mel ni bàyyi lay si la ca xel koom moom it jàng na ci sëriñ Mbàkke Fall mii toog moom it jàng na ci ay kaamil Ousseynou Sylla mi nga xam ne moom it te si te du maam tafsir boobu la jàng na juróom-benn kaamil ci bis bi. tey jii ñu tëj ko ci njiitul sëñ Mahmadan Jaxate mii nga xam ne moom it ci njabootu waa Njaxate la bokk te ne ci mbooloo mi te yor daara fii ci dëkk bi. ak ñeneen ñi nga xam ne jotaguñ seen i kaamil lépp rek jëm ci bis bi waaye bi ma laajee dama lañ ko def addi yonent bi addi Cheikhul Khadim addi Cheikh Modou Fadal mi ñuy sant ak mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi. waaye ñu ñaanal ci sëñ ma Massamba Diop Samb mi nga xam ne ren jii moom lañ dara jaale bis moom lañ ko tuddee yàlla dolli ay leeram te fayal ñu ko ñaanal ci njaboot taawam bi fi nekk Cheikh Abdourahim Diop ak sunu baay yi nga xam ne tamit li leen ci ñaanal ren fàttali leen muy sëñ Madi Silla sëriñ Baara Silla Baye Tafa Silla Baye Ibnu Silla ak sëriñ Ngoone sunu wëllëri ak mboolem njaboot suñu jëlee tafsir gi ak di ci ñaanal mboolem jullit yàlla yi rek ñëpp xaj nañ ci yàlla ci yàlla boole ñëpp tàmbali liggéey bi ndax sëñ Massamba Diop Sam mi nga xam ne moom lañ ko dara jaale xalifa bi ñu mu yónni ñu ngi nii toog ñuy waa këram jëwriñam ak mbooleem ñu àndal yàlla dogal na wax naa leen ko léegi ci biir ma ne leen bis bi li ma ci jublu di ko tuddee mag yi sëñ Tuubaa yi mooy fàttali mag ñi fàttali mag ñi sama kalaas gi ngir ñu am weneen doxin seen diggante ak sëñ Tuubaa te xam ne mag ñi fi nu jaaroon ba am sëñ tubaa ku fa jaaroon ku fa jaar man nga am sëriñ tubaa te la fi nekkoon jógu fi sëñ tubaa jógu fi loolu lan jublu ci fàttali mag ñi def naa bis bi ñi ma ko tuddee ci mag ñi bari na tuddi naa ko maam Cheikh Anta tuddi naa ko njabootu sëñ tubaa gu bari daaw maa ngi tuddee sëñ ma ren ñu tuddee ko sëñ Masamba Diop Sam bi ma jokkoo xalifaam muy doomam doomi xalif maam Thierno bëgg a dem tubaa dana ma sëñ bi nee jaru ko li nga ci sàkku sëñ tubaa dina ko defal ak sëñ Masamba Diop Sam daan may boole ak njaboot gi ñoo teew nii ci ci ci mbooloo mi ñoom lañuy jox si kàddu gi ñëkkati ci turu sëriñ bi xalifa ba ku ñuy wax sëñ Abdou jaañ moom lañ jox kàddu gi su noppee ñu wéyal liggéey bi ndax ku ne xam na ne xat na te sëriñ yi dañuy delluwaat waaye nag nañ xam ne bis moom ñoo yéen ba fajar ndax ki koy fanaane te suba la ñëw suba teel teel na fee dugg ci dëkk bi yàlla dogal na suñ digganteeg moom it ku ne xam na ko mi sëñ Xaadim Kebe fajar la ñëw daaw bi mu fi ñëwee jàng dem ñu bari naan jàng mi doyut ban ca ginnaaw su bëgg la jàpp bis bi ne ma déwén bi sàngam lay doon dootuma boole sa bis ak benn bis ndax sama diggante yow ay rajo mu la indi suba fi la yenn ak njaboot yëpp ànd ak ñëw loolu nag yéene la ñu boole ko ak sëriñ xaadim ndaw ca xombal muy mbokk moomit it di lépp mi ngi ci biir ak doomi Fallou njaay ji ni wax sëriñ Ndiaye moom it ñëw na ñoom ñëpp danañ barke la ku ci xaj ci bis bi incha allahu rabbi kon jox kàddu gi sëñ Abdou Diagne wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaare bu baax te di leen baalu àq tey siyaare mboole kilifa yi nga xam ne si ne ñu ngi ci biir tànd bi waaye di jiital nuyoo bi xalifatil ham li tarixatil muridina Seex Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te wér sun borom bàyyi ko fi ba yéene jim am ngir liggéeyal ko seexul xaddim mu def ci lu kawe njortam ak mboolem jullit yëpp ak taalibi yëpp ci barki Seydina Muhammad di jégalu bu baax ci kàddu yi nag lottu nañ ci yëkkati ay kàddu ci biir tànt bi waaye comme que kàddu ndigal la ñu jëfandikoo ba bayitu sëriñ bi mu naan laa tafaloo say an rek ndigal rek moo ñu booleeg kàddu gi comme que dañ fee ñëwee ci ndigal kàdd gi ñu jële ko ci ndigal faw ñu jéem a jëfe ndigal loolu waaye ñu ngi jéggalu bu baax di jéggalu kilifa yi nga xam ne si ne ñu ngi ci tànt bi ñëpp ak mboolem képp ku fi teew tey am mbégte bu baax ak kontaante bu rëy ci bis bii bis bi nga xam ne si ne Serigne Saliou def na ko yàgg koo def ren ji mu duppee ko jàmbaar yi sëriñ tuuba muy Cheikh sàmba Diop Sam yaakaar naa ni ku gëstu istuwaaru Seexul Xaddim ci ëttub Seexul Xaddim rek danga xam sëñ ma sàmba Diop xëy na temps bi duñu ko may walla jataay bi duñu ko may ba man cee xuus lu bari waaye loolu rek doy na sëkk ab tënk ku ne xam na ni bis bi sëñ Saali da koo tuddee bisub Cheikh Mouhamadal Fadal la waaye mu duppee ko sëñ ma sàmba Diop Sam dégg ngeen ci ay waxam mu ni lim ci jublu jubluwaay bi mooy fàttali waaye wane yoon woo xam ne si ne dañ cee war a jaar ba xam mag ñi nga xam ne ñoo toppoon Serigne Touba kon looloo waral tey mu duppee ko sëñ ma sàmba Diop. ñu ñëw fi nag ci turu sëriñ bi muy Cheikh Abdourahim Diop yàlla na fi yàgg te wér mu yabal jawriñ sëñ Abdourahim Diagne ak mboolem ñim àndal ñëpp xëy na ñim àndal ñëpp mënuñoo nekk di lim ñépp waaye àndal naag ay ndaw yu mat a àndal di wax sëñ Saliou ci kàddu sëriñ bi mi ngi lay xamal ni la jëf ji nga jëf ak lii nga def duppee ko sëñ sàmba Diop sëriñ bi nee na kontaan na ci bég na ci njabootu sëñ ma Massamba Diop gépp bég nañ ci te ñu ngi la siy ñaanal tamit muy ngërëm li nga xam ne si ne moom nga siy sàkku muy ngërëm a sëñ Massamba Diop waaye ngërëm a seexul xaddim yàlla nga si amee lu kawe sa njort ak mboolem képp ku teew ci baas bi di la xamal ne sëriñ bi nee na su mënoon a yebal njabootu sëñ ma sàmba Diop saam gépp ñu teew ci bis bi dana ko def ndax sëriñ bi sëriñ bi jaral na ko waaye kenn ku nekk xam na ni jamono bii dañoo nekk ci wàccaayu bisub sëñ ma sàmba Diop boobu bi ni amal daaru saam di at mu jot mu nekk la vingt janvier bi di ñëw ndax yaakaar naa ni tey ji dafa bëggoon a yebal ak njabootam aki doomam ñu ñëw teewal ko ci bis bi waaye xam naa ni wàccaay woowu ñu nekk ak réunion yi nga xam ne si ne moom lañ doon def tey ji moo tax mu yabal jëwrin yi boole kook suñ jëmm yu xeeb yi ñu ñëw teew ci bis bi waaye di la xamal ni daal sëriñ bi nee na bis bi ñor na ko ñor goo xam ne si ne fu la yegg rek wala lu la ñor rek weesu na foofu kon mi ngi lay ñaanal si barkeb sëriñ Touba mi tax nga koy def ak barke seigne Masamba Diop Sam mi ngi ko duppé ak mag ñu bax ñi ngi ko daan tuddé yalla na la suñu borom defal ngeeramul ñoño defal ko bép talibé bo xamni sina si nga ci tante bi tay am mbékté bu baaxa baaxa lu nga ne tuddu mourid bénéfice yi mu am yépp daan ne bép mourid bo ne aju nga ci man na la wër ne texe nga te lépp luy lore dana la sori lépp luy loré lépp lor rek sori na la daan ne képp ku aju ci man de dina mucc fii ci àdduna dina mucc ëllëg àllaaxira loolu kon bokk na ci ni ñu war a waajal ndaw ba mu xam fi muy teg tànkam am référence bu baax ndax mu xam ay yëngoom xam ay dalam bokk na ci ni ñu war a waajale ndaw loolu ba mu mën a am taxawaay ci liggéeyu seexlu xadim bi mooy ñu fexe ba mu xam fi muy tàmbalee ak fi mu war a jaar ak li mu war a def nit li muy def lu nekk war naa xam la ko cay jariñ mu doog caa dugg bu koy def war naa xam na mu koy defee war naa xam fa mu cay tàmbalee war naa xam fa muy jaar ba àgg ci résultat yi mu waaye su xamut li muy wut xamut njariñ li xamut ni muy mu koy wutee xamut fa muy tàmbalee xamut fa muy yem du ci mën a jariñu wala résultat ba dana neex dana yeex a dana yeex am résultat ndaw yi sëriñ bi waxoon na ne so soññewoon na ci ñu bëgg liggéey te baña di taamu ay liggéey bañ a liggéey daa soññewoon ci ndawal ndaw yi ñu ñu sakku lu lew te mooy liggéey wetti seenu ñaq te bañ a tàllal seeni loxo rek di laaj ndax sëriñ bi li mu bañoon mooy nit de su fekkee ne dangay tàllal sa loxo di laaj mën ngaa laaj koo xam ne waroo koo laaj ndax koy laaj bu yàggee dana la sañal te sëriñ bi nee na ki ngay laaj yàlla na la saña sañal saña sañal kon kuy liggéey nag man nga doyloo sa liggéey la ngay liggéey barkeel nga am ci la nga bëgg ba doo tàllal sa sa loxo saa soo soxla soxlaa da rek nga jàpp na nga war a tàllal sa loxo waxoon ne wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xeyri waxami amma al batalatu wa tadyiu al umr bi xayri maa yaani fidaauha yadur sàkku lu lew moom sàkku lu la daan tuddee liggéey liggéey yi ñuy liggéey sàkku lu la ko tuddee ndax sëriñ bi jàpp na ne it kii dem di liggéey liggéey ba muy liggéey da ko war a tànn ndax ab jullit lislaam du ko tënk boyelu ko du liggéey boo bëgg a liggéey rek di ko liggéey liggéey bi bi ngay liggéey en tant que jullit war nga ko xool ba xam ndax lew na wala lewut koy amee ndax liñ ci amee lañ ci bëgg a jaamu yàlla te jaamu yàlla kenn mënu ko defee ci la lewut kon liggéey bi ab bi euh, jullit bi di di tànn rawatina murit bi sëriñ bi waxoon na ko ne ko nanga nga koy na nga liggéey liggéey bu lew nee na nag liggéey boobu boo ci nekk ne la wóor ne loolu farata la ci nee na farata la ci bépp jullit la wax daan na nag taxawaalu ak euh, di di yaakaar rek loo am ci nit ñi nga ko war a amee sëriñ bi nee na loolu day ak lor dong la ci mën a jële loolu bokkoon na kon ci soññ gi sëriñ bi soññe woon ci wàllu liggéey loolu bokkoon na ci xam ngeen ne kooku ñëwoon ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam yore ab këllam di yalwaan yon bi sallallahu ko loo yor mu ne ab këll mu ne ko leelan la mu ne ko lee lee des ab xepp la mu ne ko demal nga jaay ko mu jaay ko ba ñëwaat yonent bi salaa salaam daal di ne ko demal nga jënd ci aw sémmiñ te nga dem ci àll ba nga taxani matt boo demee ba am sayu matt nga takk ko dem jaay ko bu ma la fi gisaat fii ak bés mu def lolo ba ayubés ja mat mu dellu siwaat la mu am mu dajale ko indil ko yonent bi salaa salaam bi ko ko indilee mu ne ko dama laa bëgg a jàngal ni nga war a def ba moom sa bopp mu ne ko bul jàpp ne loo loo am rek danga koy war a war a laaj nit ñi mu ne nii ngay def soo ko continuer dootoo laaj kenn kon jàngal na ko liggéey waxoon na ne nit day amut dara loo xamante ne nii dana ko dunde lu lu lu gën wala lu féete kaw muy dunde aw ñaxam kon Sëriñ Tuubaa dafa yàgg soññ ci liggéey ak góorgóorlu mag ñi sax lim leen jàngaloon lépp loolu loolu bokkoon na ci li ci jiitu mooy ba mu dajalee mag ñi kenn ku ci nekk mu laaj la ñaar fukki ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett bañ ko dajalee ba ñëw mu nekk ab lim da leen ne jubluwuma ci rek day loolu leen alal ji waaye dama leen bëgg a jàngal ni ngeen def ba moom seeni bopp. ndax lépp lu ngeen bëgg a def bu ëllëgee bu ngeen boolee seen bopp kenn ku ci nekk def ca itteem lépp lu ngeen bëgg a taxawal mën ngeen koo taxawal kon loolu bokk na ci it soññe boobu sëriñ bi da koy soññi ndaw yépp xam loolu dara mënta taxaw ci yaafus bu ñu boolee kenn ku ci nekk boo ci defee sa itte li ñu bëgg a taxaw lépp day taxaw tey jii bés bii ñu nekk lii nga xam ne moo nu wër ak li nekk ci biir lépp ak xéew li fi jaar yëpp kenn mënu ko mbooloo ñooy boole seen bopp boole seen bëgg-bëgg kenn ku nekk def ca la nga man ñu fexe ba taxawal bés kon loolu bokk na ci li nga xam ne mooy tax àdduna bi jàkk mooy taxe li ñu bëgg lépp sotti sëriñ bi ci loolu lañu tegoon bu ko def kenn ku nekk rek bu nekkee ci loolu euh, na nga na xam ne mën naa defar addunaam te boo ëllëgee li ñu defar àdduna mooy defar àlaxira nañ jàpp ne lii lii nga xam ne mooy am fii adduna yamul benn àdduna lépp lii ñuy am àdduna du yem àdduna lépp day àgg àlaxira moo xam lu baax la moo xam ab safaan la kon bu ci kenn ja bàyyee xel loolu rek day lépp day daal di mat kon daal ci gàttal bëggoon nañu mu gën a yaatu waaye kilifa yi dañ toog waruñoo toog sax ñuy yëkkati kàddu waye ndigal mo tax ñu yëkëti kaddu ak bëgg-bëggu ki nga xamne suñu rak la woon bëggoon ñu yëkëti kaddu rek li ñuy tëjee suñu kaddu mom lañuy ñuy defaat ay seede tuuti ci mom yag nañ ko wax ni am nañu ñu jitu ñu seede ci lom lolu ci mom ci ak mbaxam ak yaatom ak xolom bu sel xamna ay bobu suñu borom waxon day man day yaakaar naa mu bokk ci lool loolu suñ boroom waxoon ne euh, ba waxoon ba xalbun salim xalbun salim day yaakaar naa salim yi am na ko muy xol bu mucc ayib ndax dama yàgg moom lool waaye lépp lu baax dama ko ci dama ko ci séen lepp lu Limu da ci dox limu wara sekk ak ay mbokam yep mi koy sekk ak ñom bu de li wax jokk mbokk ak solo simu am dana ko dox dana ko wax dana defare ay diggante xolam bi it jàpp naa ne ëpp ëmbalu ci kenn lu ñaaw te lolu bi sallallahu alayhi wasallam mas tok benn ak sahaba yi bam yag mu ne len defaru len nituk àjjanaa ngi ñëw ñu defaru ñu toog ba mu yàgg waa ji agsi ñépp xool ko mu toog ba ah euh, jataay ba egg mu daal di jóg dem ñu toogaat ba beneen jamono yonent bi ne defaru leen nitu naa ngi ñëw ñu toog ab diir ka ñëwoon ñëwaat loolu jaaxal saxaaba yi lool ba mu jógee ba dem am kenn ci biir koo xam ne bëgg naa xam moom waa jii lu mu def ba dugg àjjana ba yonent bi di leen ko wax mu daal di sol dàllam dem seeti ko këram bi mu demee nuyu ko daal ne ko man damaa am itte ju may dox te bëggoon na dal fii ba itte ji jeex ndekete moom daa bëgg xam waa ji jàmm yàlla ju muy def ba dugg àjjana ba yonent bi di leen ko wax ñoom ñëpp ñu koy dégg nee na bu ñu demee ba dugg dégg guddi mu koy déglu ba xam dina jóg di nekk ci ay naafila ak jàng alxuraan ak ci topp su jullee geet bu ci tegaatee dara euh, safa witar lay doon bu yeewaatee suba lay doon tegaatu ci dara nee na mu toog fa lu yàgg gisut mu dolli ci dara nee na mu daal di ñëw daan ko ah ay li yëwan de man damaa ñëwoon di la yëddu si ndax dañoo toog ci jataayu yonent bi ñaari yoon joo xam ne bu ci nekk dana defarul leen nitu naa ngi ñëw te ñaari yoon yëpp yow yaay teew ca jataay ba ma bëggoon xam looy def ba dugg na ba yonent bi duñ ko wax mu ne ko ah, man day xam naa ne li ñëpp def de laay def xam naa ne farata yi daal dinaa ko def waaye xaw ma leneen lu ma ci teg daal toog ba ci àgg mu ne ko ah xam naa lenn ci sama bopp de sama xol bi de ëmbalu ma ci kenn lu ñaaw mu ne ko kon looloo tax nga dugg àjjana Saalum it yaakaar naa loolu ci moom wasalaamaaleykum wa rahmatullah